أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أصحاب الفضيلة معالي الشريف أيها السادة إخوة الإيمان والإسلام niyaabatan an cheikhi wa sayyidi Abdul Aziz Al Amin niyaabatan anhu aqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi aqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi yàgg ndax wax nañu lépp liñ fi war a wax yëpp génn na fi war a wax yëpp fa tabaarakallah sama mbokk yi wax nañ ko lépp xanaa lenn rekk ci des mooy gërëm li sant waaye li ci des dëgg-dëgg rekk ñu génne ko nag ci kayit yi pratiquer ko ci cër yi loolu daal ñun ñëpp moom la ñu dese pratique théorie Sénégal war nañ ci doyal la Serigne Babacar Sy naan balu shikaayata bàyyi leen jàmbat léegi wax ni te liggéey jot na yaa xaw bi bila bila amali kon ñu wutu fi Serigne Abdou nag moom it mu wuutu fi xalifa bi amadallahu fi xayaatihi lana wa lil ummati l muy Cheikh ma Tidiane Sy al maktuum yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi lool yàlla am na ko sañ na ko mën na ko yàlla ko ko yàlla defal te roofaat kattan bu ko mën may mu jóg ci barke Seydina Muhammad ak wér defal ko it ki nga xam ni moo nekk amin ci kër gi yëpp dégg ko nag téye ko comme ni mu ko téye defe ko fi mu ko war a jaarale yéen ñëpp kenn ku ci nekk xam ngeen kër yu mag yi kuñ ci jox responsabilité bi la ngay dégg boo ci basé woon doo dem maa ngi koy wax léegi sama mbokk mii ni ko baat bu nekk di ngeen ko dégg waaye yonent bi dégg na saaxir saaxir lu ngeen koy firee ah jabarkat yonent bi dégg na kaddaab dégg na majnuun waaye ndax geesu na moom la seen maam Cheikh Alxaaji Mansour di wax naan ala innama al amalu bi sabri wa tuqa waaye wala taltafit ñu ne ko lu tax mu ne inna al karima gayur fii ñu toll ak sat góor buy geesu doo àgg fa nga jëm di nga dégg lu nekk na waaye fëggal mu rot rek dara du la ci taq kon sëñ Abdou lañu ñu wuutu fii mu wuutu fi magam jooju muy Cheikh Ahmad Tidiane ci daje bu am solo bi nga xam ni ñi jël waxtaan wi tey kenn werantewul ci seen xam-xam dégg ngeen xam du Mouhamadul suuf fi mu jaar dégg sama mbokk bi wutu assemblée fi mu jaar dégg ngeen borom xam-xam bi xam ni kenn werantewul ci senegal ni boroom xam-xam la gis ngeen fi mu jaar ak fii tariqa bi jaar fi estuwaaru mag ñi jaar lépp nettali nañu ko ba kenn ku ci nekk am nga ci dara kon ba tey ma dellu laa laajaat lu des jëfe rek kon ñu ngi sant bu baax suñu njaboot lañu waaye nag il faut ñu sant leen dañuy wax naan nit du sant boppam waaye il faut ñu sant leen ndax seen taxawaay bu rafet bi ba lii daje ñu dajewaat wax ci benn mag moo xam ne daf fi jaar def fi li fi moromam yëpp daan def muy na Ahmada Tijani Chérif radiyallahu taala anhu jaar bi mu jaar fu nekk mu jaar fa benn mag dafay wax ni mag ñi ñoo yóbbu sunu réew ci quatre-vingt-quinze pour cent seen liggéeyee ko fa yóbbu moo tax nee nañu bu fekkoon ni njaboot gi jaar ci seen tànk di doom wala ngay sët kenn ku nekk def nga fa def nga li la war kon doo am benn majaal benn domaine boo xam ne bi benn espace boo xam ne bi keneen mën na faa samp leneen lu dul islam benn bindkat ko wax nee na Sénégal liggéey bi mag ñi liggéey moo ñu yóbbu ci quatre-vingt-quinze pour cent quatre-vingt-quinze pour cent yooyu nag njaboot bi ci juddoo bu ñu defoon benn effort teg ci seen tànk yi fa ko maam ya tegoon ak bàyyi yi kon du ñu am benn espace boo xam ne bi nit mën na fee samp leneen lu dul lislaam moo tax wa tabaatuhum zuriyatuhum bi imaanin alxaqnaa bihim zurriyatihim wa ma alatnaahu min amalihim min shay moo tax jànkatu alquran bi daf ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma al axira wa dakara allaha kasiran ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما متك من المؤمنين rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi fa minhum man qada nahbahu waaye wama ñun nag du ngeen ma wuyu mag mi lu nekk dégg nañ ko tolérance bu nekk jëfandikooku ko ni soppi wuñu soppeeku wuñu waaye ñun nag ah ñun nag nahnu gayyarna wa baddalna te inna allaha lam yakun mugayiran nicmatan anamaha ala qawmin xata yugayiru bi anfusihim ah <laughs> nahnu ala asaari man nee na ñu ngi ci jeexi kon sëñ Abdou ngi sant nit ñi bu baax a baax lii fàttali la gis ngeen fii sunu mbokk sunu soppe sunu xarit sunu lépp ak ñoom Mansour fa tabaarakallaa gis geen fii mu jaar histoire nettaliwaat lépp mais histoire du nettali rek pour nopp mais pour pratiquer dinaa leen nettali benn mbir bu ma daloon ak seen papa Abdoul Aziz damaa ñëw rek yàkkamti mu yónni ma ñëw rek fëgg bi ma fëggee mu ne kokkan la ma ne ko man la Serigne Babacar mu ne déedéet Serigne Babacar def na yoonu Serigne Mbaye ma agsi ne ma indil kayit ma indi kayit mu ne ma bindal laa naa arifu daqa ma ne ko papa mokkal naa ko mu ne ma déedéet da nga koo yaru lu mokk ci cër lay fay mais xoolal alquraanu Sénégal niñ ko mokkale te ba tey kon tariqa bi Seydina Cheikh daf ko indi jële ko ci maamam dañuy wax ni chartu tariqati li tariqati laali laali cheikhi sartu tariqa bi tariqa bee ko moom cheikh moomu ko Seydina Muhammad moomu lu yàlla tër la yaa ayuha alladina amanu kurullaha dikran istaghfiru rabbakum innahu kaana inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu kon yëfi yàlla la yëfi yàlla la waaye yàlla dafa am lu mu wax ngeen baal ma xaq dafa ni walaqad karramna bani ñëpp dégg maa bind doomu aadama maa ko teral jumtuwaay yi muy soxla yëpp mu ngi ci moom jumtuwaay yi doomu aadama soxla yëpp def naa ko ci moom waaye mu wax nag wali kullin darajatun mimma ku liggéey la yàlla wax nee na effort ba ngay def nag ba yokk li ma la jox mu jëm kanam du ma ko jox kenn yow laa koy jax wa laysa li lisaani illa ma wa anna saayahu sawfa nga dem ci biir xoolal alquran ni mu bare innana sami'na munaadiyan yunaadi lil imaani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi wa tawaffana ma'a al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wala innaka la tukhliful déglu leen jawaabu yàlla tontu yàlla fastajaaba lahum rabbuhum anni laa udiiu amala yàlla nee na ku liggéey laa mën a joteel mais ku liggéeyul dama lay seetaan moo tax sukkandiku al itimaadu ala rahmati nañ ci jóg sukkandiku ci yërmande yàlla yaatu na nañ ci jóg yërmande yàlla yaatu na waaye yàllaa ngi nii nañ loxo loxob sàcc ana yërmande ji fii lañuy ñuy doxee loxob sàcc kon fële nag kon Seexna Ahmad Tijaani fa tabaarakallaahu def na li ko war mag ñi def nañu li leen war kenn ci ñoom dencul dara lépp génne nañ ko lépp lañu génn amul dara loo xam ni mag ñi denc nañ ko loo xam ni dina jëriñ doomu aadama ndax amuñu ci droit lépp la ñu jotal euh, inna allaha yaamurukum an tuaddu l amaanaati ila ila ahliha waaw dénkaane la bu fiy nit ñi jaar Euh, ngeen baal ma xàq ba tey seen góor ga Cheikh Al Hadj Abdal dañuy tëddi guddi mu ne ma jógal tëri fooy tëri ma ne ko sunu kër mu ne ma yaa ñeme yàlla sëñ Babacar fooy tëri ma ne ko ah kër mu ne ma yaa ñeme yàlla sëñ Babacar fooy tëri ma gàkk mu ne samaam di daf fi jaaroon rek passage ñu di ko fi defloo tafsir nag yàlla ni ko faral toog lii nag jaami yàlla yee ko moom ku fi jël si wàllam jox ko ko bu ngeen fi amee kër di ngeen tëju ba kenn du leen gis mbir jàmbur yi fi jàmbur la lii nekk ci loxol sëriñ si yëpp amul kenn koo xam ne kii da ko judduwaale da ko fi fekk ñu di ko liggéeyal yàlla kon nañu génne joxe ko te nekk exemple ci sayduna muhammad dañ ko laaj saydu saydatuna xadija lan mooy jikkoy sayduna muhammad mu ne kaana quraanan yamshi bayna naas alquran ju daan dox ci biir nit ñi la pa bu mu jéggi nga xam ni sayduna muhammad mu ngi tollu ci aaya tel waaye ñun nag fu ñu toll bu ko defee nag dekkalaat dekkalaat mbir mi am na solo kenn werantewu ko waaye duñ ko dekkal ba pare dencaat ko nag ndax mag ñi ko liggéeyoon ba tey mu dem ba këyit yooyu di yàqu ñu di ko bëgg a récupérer di ko defaraat di ko tegaat ci loxol nit ñi sàggan sàggan la boo xam ne gii daal nañu ñun ñëpp ñun ñëpp la daal mais buñ ko sàgganewul woon génne ko di ko xool di ko pratiquer comme ni ko mag ñi doon def kon këyit yi du yàqu ngeen baal ma xàq dama gis benn téere boo xam ne seen maam daf ca liir ba pare Cheikh Al Hadj daal di wax ni alhamdulilahi téere bi de yàlla maa ngi sant yàlla ameelu ma téere bi xàq ndax liir naa ko ba pare te it danaa ko jëfe waaye ñun nag sunu livre yi boo demee sunu bibliothèque yaa nga fees dell mais boo ci laal poussière la boo ci laal poussière la moo tax lii ñuy liggéey mu nar a génn na feeñ ci cër yi mbokk yi looloo tax ñu di ko wax bu ñu toggee ñu sant Jóob lekk lañ ci bëgg waaye togg ba ba mu farax nga tuur yi yàlla waxu ko kenn kulu washrab wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin kon ñun ñëpp ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax turaas bi nag dafa laaj xale yi fa tabarakallahu yàlla na leen yàlla jàppale dafa am lu yàlla wax di ko nettali ci yent yàlla daawud anna yakunu lahu lmulku alayna wa nahnu axaqu bilmulki minhu walam yuta saatan min almaal qaala inna allaha astafaahu alaykum wa zaadahu bastatan fil ilmi wal basta fil ilmi mooy mi ilmiya wal jismi quwa amaliya force ni ko ñaar yi ko yàlla jox may jox na ko ñaari force dafa ni dañuy wax ni daawuda yàlla daf ko fal pour mu jiite nit ñi mag ña nekkoon ci réew mi yëpp tàngat ñu kii nan la jiite jiitee yorul alal yorul dara yàlla ni maa jox ci ma def ci moom force xam-xam ak xam-xam def ci moom force ndaw lu mu téye nga dem kon nga gis ni lu mu téye mu dem boroom xam-xam ndaw ndaw ndaw moo mën a liggéey waaye dem ba jeexal bëgg ñu jox la foo jëm lan na yàlla seq lan la Seydina Muhammad waxoon Abazarine Abazar dafa ñëw fekk benn mécc benn liggéey bu tegu ci yonent bi mu ne yonent bi dama soxla ngeen jox ma liggéey bi yonent bi ne ko bu ma ko joxee danaa tooñ métier mi danaa tooñ réew mi ndax bu ma la ko joxee amatuloo kàttanu liggéey te bu boobaa métier mi danañ ko doyadal te fekk ni yow yaa amatul kàttan bi kon bàyyi lu ma am ñu bokk te ñu jox ko ñu ko àttan moo tax xale yi lii ngeen def il faut ngeen taxaw ci jàpp ci bu baax a baax ànd ak gëstu nag gis ngeen ñoo xam ne ñu ngi nii bu ngeen demee ci ñoom rek ñu teg leen ci yoon waaw waaye nit du am dara sàggan ba ñàkk ko di yóox ku defee nag lii rek moo taxoon ñun ñëpp ñu daje euh, du ma tudd Cheikh Al Hadj waaye kenn rek lay tudd waa ji dafa wax ni ibaratuhu bi shatta wa xusnuka waaxidu wa kullun ila daka aljamali yushiru tariqa yi bari na ku nekk ngi kañ kañ la kañ yàlla taalu yàlla ñoom ñëpp ci lañuy ñuy jëm kon bu ñu dajee bi fa tabarakallahu sama mbokk yi wax nañu léegi te loolu moo war a am ñun ñëpp ñu dajee lan lañu lan lan ndax ndax tariqa mën na taxaw te lislaam taxawul neewoon naa keroog damay tabax te def naa sama finition ba pare te yëkkateeguma birig te bu ma dee taxaw ci kaw laay tàmbale jëm ci jëm ci suuf jëm ci fondation bi du ma tàmbale ci suuf jëm ci est-ce que loolu mën na nekk bari na tey ku yor tariqa te boo ko laajee ci diineem du ci xam dara te dañu wax ni al muraadu bi tariqati huwa al ishtigaalu bi maqtadathu shariatu wal xaqiqatu li ñu namm ci tariqa mooy nga jëfe li charia teg jëfe li li xaqiqa teg loolu lañu ñu namm ci tariqa waaye namuñu ci tariqa rek jur tur yàlla di ci noot nit wala nga di ko def pour xaalis wala nga di ko def pour jóg ci kaw bari na ñuy wérd tey ku ci wérd da ngay noot bari na ñuy sikkar tey ku ci sikkar da ngay sikkar pour mu jox la xaalisam wala mu wëlbati keesam yëpp jox la ko bari na bari na bari na loolu nag taxul woon turu yàlla jóg tur yàlla dañ ko daan jaamoo yàlla jëriñ ci nit ñi jëriñ ci doomu aadama yi kon yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel bu baax a baax maa ngi tëj ndax guddi na waaye fi may tëjee mbokk yi kalimatullaahi hiyan wa kalimatu alladina kafaru fu ñu ci toll ñun baatu yàllaa nga ca ca kaw baatu yéeféer yaa ngi ci ñun ji ñun julliti fuñ ci toll ah du ngeen ma wuyu yéena ma wax loo kañ wuyu leen ma baatu yàlla nga ca kaw mu ngay filtré ca kaw kenn mënu kenn mënu la tax baatu yàlla boobu wàcc du wàcc mukk wa yaaba allaahu illa an yutimma walaw karihal kaafirun walaw karihal mushrikun kon baatu yàlla nga ca kaw xam nga li tax fii ci senegal doxul mooy tariqa yi lañu war a ànd nekk benn ñun ñépp ñu nekk benn kenn ku ci nekk la maa ngi kenn ku ci nekk liggéey pour diine jëm kanam waaye tariqa yi boo ci joxoñ seeni borom jóg waaye boo laalee diine kenn du jóg loo yekk diine tey loo wax ci diine doo dégg kenn ku àddu waaye boo junjee tariqa ñëpp jóg tariqa boo mën a laal ñëpp jóg dal ci sa kaw kii dafa nangam kii dafa nangam kii def mais bu ñu laalee diine benn nit du jóg te ak turqu kulluha ila ila rahmaani musilatun muslikatun yaa jaani sama góor gën sawaawun intama ila jinaani aw intama li ahmad atijaan il kulluhum qataan ala sawaab kon yoon la bu ñuy teg ju jëm ci yàlla ñun ñi nga xam ni tey tey kii lii mu bind waroon nañ ko am bu yàgg waaye toog rek toog toog te dañuy wax ni alxikmatu daalatul mu'min foo dégg xam-xam demal jëli ko te xam-xam du trahir mbokk yi xam-xam du war kan mooy war nit waaye xam-xam du war te àll mu nuurun bu ko defee nag ñun ñëpp ñu ànd santaat ibadeer sant Mouhamadul Mansour wax ko mu santal ñu kilifa gi bu ñu ko santee rek ndax euh, ar bi qadri mursal ndaw lu nekk darajay ku ko yónni la yor kon ñu sant ko sant mbokkam mi sant it Iba Der fa tabarakallahu yàlla na ko yàlla jëme kanam yàlla boole ñu defal tawfiq tabarakallahu senegal lu ko yàq fi mu toll jik ay jikko walla ah, wala jikkoo ko yàq d'accord ngeen ci jikkoo ko yàq ah lan mooy defal jikko lan mooy defar jikko ah yar waaw lislaam xool rek ñun ñi fi nekk ñëpp kenn ku nekk bi nga xëyee julli nga julli nga suba ña nga bàyyi julli nañu suba jàkke yépp senegal yépp d'accord ngeen ni julli nañu suba te inna salaata tanha wal inna salaata tanha anil wal ñun julli di lu ñu mel julli day dox diggante nit ak fen julli day dox diggante nit ak jëw julli day dox diggante nit ak sàcc waaye am na ku dem ca jàkk ji di julli ji ku moytuwul mu yóbbaale sa daal kon fu julli toll ci ñun ah du ngeen uyu fan la julli toll julli day dox diggante euh, nit ak fen julli day dox diggante nit ak jëw julli day dox diggante nit ak lépp lu yàlla bañ ngay xëy di julli suba ak ngoon di tari faatiha suba ak ngoon te mënoo ànd ak kenn te julli solidarité la iyaaka yàkkan yow mi julli fa euh, naafila iyaaka yàkkan wa iyaaka yàkkan ihdi yàkkan làmmiñu lan ngay waxe làmmiñu mbooloo foofu la solidaritéyam yam yow yàlla yow la ñuy jaam yow la ñuy sàkku ndimbal yàlla senegaal dafa jaaxle teg ko ci ñaata jullit ñuy xëy di dëpp seen jëj ci suuf di ko wax suba ak ngoon Sénégal la kon mbokk yi pratique bi rek moo des pratique bi rek moo des sëñ Babacar dafay wax ni inna rajaa la fi kaza deel tegtaloo soog a yaakaar dajug alal yi Ahmad Shawqi wax ni faqul li rasulillahi yaa xayra mursalin nga dem ba ca biir mu ne shuubuka fi charqil bilaadi wa garbiha ka asxaabi kahfin fi amiqi subaati takat bi aymaanihim nuuraani zikrun wa sunnatun fa maa baaluhum fi xaaliki zulumaati ahmad shawqi day wax ni kii dem ci yonent bi di aji boo demee neel sayidna muhammad ñun day jaaxle nañu dañu gëlëm sa sa njaboot yépp day dañu dugg dañu mel ni ci biir ci biir xunt la ñu nekk a ngay nelaw kenn yeewuwul te ñu ngi ñaari tors yu leer nañ yoo xam ne kenn du ko sarse waxtu woo ci jubloore fekk ko ci leeram muy quran ak sunna lu tax ñuy dox ci lëndëm jullitu Sénégal yi fi mu toll ñépp a ngi dox ci lëndëm maa ngi yor benn téere bu yéeme dafa wax ni musulman yi xam ne ñu ngi Afrique dañoo perdre seen identité kenn mënut wax ni lii laa noonu la ko bindee perdre nañu kenn loo dem ci kenn pour mu identifier la boppam ni la lii laa amatul xaw ma nag lu ngeen ko gisee yéen bindkat yi ah na seen nee na Afrique dañu perdre seen identité ñu jullit yi kenn mun la wax jullit la wala déet ndax foo dem fekk ko jullit yi saxatuñu ci benn xar kanam ay xar kanam la ñu yor bu nekkee ci jàkka ji mu nga xar kanam bu nekkee ci mbedd bi mu ngay xar kanam ba wol bu dul woon ca jàkk ja foo dem fekk ko beneen xar kanam bu bokkul ak bii ñu tudde jullit moom la yàlla di wax ni mudabdabina bayna laa ilaa wa laa ilaa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu